ana xaalam laa wax ci xaalam bi nga xamante ne sëriñam Baye Mouhamed Rami daf ko bëgg sala bay yaani ram rasulillah sala bay dani ram la mom la mom la sala bay yaani bay dani ram la mom la yaa moom jëmu ji ayni rahmati rabbaani ayni alxaq ayni almaarif yeewoo nga ko yaa ko moom yàlla na la méngoo sa biir ak sa biti sëriñ bi yàlla na ñuy wàlluwaay bii nag toog ci ne dong liggéeyal ko ba xubi daas bili yàlla toog ci rek di liggéeyal Baye Ousmane rek billahi lazi laa ilaaha illaa huwa ci kaw ci kanam rek toogal sëriñ bi nee na nga toog bul daw ma xaw bi toogal jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf lii nag xeeb nañ ko lool waaw xeeb nañ ko lool jërëjëf doo joxe yàlla ak xam joxe yonent bi salaay salaam ak xam mu ne lépp loo joxe ci sa sëriñ rek loolu dëgg la loolu pays bi da koy nangu mbëggeel foofu la nit ñi dara wante moo tax kenn waru koo caaxaane mbëggeel moo sos àddina bi yàlla dafa namm dal di bëgg ba mu bëggee rek ci la def dal di tajj lii muy xaqatu Muhammadiya nekkoon na fi boobu kenn xamu ko nekku fi ak dara lenn amut mu nekk ci wetaayam googu rek te te du ci saxoon du am benn njëriñ waaw mu ne ah yow yàlla yow fi ngay toog rek nekk sa ñumbu ngi rek ba kañ ah yàlla dal di wax boppam nag xanaa loolu mooy la olof yi di wax ne nit dafa war di waxtaan ak njëganaayam kon yàlla dafa waxtaan ak njëganaayam mu ne ko déedéet du fi nekk man rek de dinaa bind mbindeef boo xamante ne ci mbindeef boobu ci lañ may moo tax ba mbindeef boobu ñëwee dëgg-dëgg xam nañ kan mooy yàlla ñaata yonent ñoo fi jaar téeméeri junne ak ñaar fukki junne yonent ak ñeent di wane yàlla di junj yàlla di joxoñ yàlla waaye kenn gisut wala ñenn ñenn ñoom ñoo gis ñaata wali yi ñoo fi jaar dégg nga waaye ba Mawlana Cheikh Ibrahim ñëwee daj dëpp gi cappaay colli ji dégg nga kooku nga xamante ne moo gisloo naar gis gisloo awsa yi kooku nga xamante ne dégg nga séeréer si nga xamante ne ñoo nekk sa biir siin dàq naan sàngara kooku mooy ki nga xamante ne moom mooy tey ba seen bëri bañ gis kooku ba mu ñëwee xalpulaar yi nga xamante ne dañoo naanoon téere yi dégg nga ba foog ne ñoo toog ci ngàngunaay yi ba bàyyi ñëwee xam nañ ne ndëkkal lu jàppoon almaytu laa yeddul ala xay lu dee la te lu dee mënu la xamul luy dund moom moomu ñëw yóbbu ñu ci xadaratu xama huwa tamsi xadaratu far ak marmaral kooku moo ñu delloo nag ci pays boobu nga xamante ne bañ fa delloo rek yàlla jot na càkku tefam ci boppam kon jërëjëfe bàñes Cheikh Daouda jërëjëf li sëriñ bi seede si ñëpp seede nañ ko ci yow bëgg Baye Ousmane ba jeex takk bëgg googu nga bëgg Baye Ousmane du nekkoon na ko yemale ci Baye Ousmane rek ñu ne du dëgg waaye mboolem koo xamante ne mu ngi safoo Baye Ousmane bëgg nga ko loolu mooy dëgg gis nga ni doo bëggee dara képp ku bëgg kooku da nga koy bëgg loolu mooy firnde ne li nga bëgg dëgg la kon jërëjëf yal na yàlla yàggal fi te mel wër Baye radiyallahu moom la ñuy roy rek lan la Baye wax. képp koo xamante ne yaa ngi jéem a buuxanteeg man ci bëgg yonent bi mu ne yaa ngi bëgg lu jomb loo xam ne mënu nekk. mu ngi mel ni rek tey nga bëggoon a dellu si démb muy tey xam nga loolu mënu nekk wala nga bëgg a jël sa baaraam bi nga ne yaa ngi laal weer bi wala jant bi xam nga loolu mënu nekk. mu ne nag joññanteeg moom ci bëgg yonent bi noonu la jomboo noonu la xaraamee kon nag dina kede bàyyi moo bëgg yonent yàlla salaay salaam boo xam ne kenn mënu koo dab waaw waaw wallaay wallaay doo bëggee sa sëriñ bàyyi moo la ko jàngal. dégg nga wax bàyyi bëgg na Cheikhu Tidiane di ko tagg di ko tagg ba ne ko yow yaay yàlla yàlla ci boppam mooy yow dégg nga wax mu ne ko yow yaay gën gi mbindeef yaay yónente Yàlla sallallahu alayhi wasallam ak lan ak lan ak lan daanaka lépp rek la jël dara ko gis nga doo bëggee dara lépp lu baax rek da ko koy jox moo tax Baye Ousmane dañ ko jox suñu jëmm yi jox ko suñu ruux yi jox ko suñu xol yi ndax lim def ci ñun kenn mësu ko def te kenn mënu kenn mënu ko waaye nag sang bi moo ko wax laay ba day daxa dégg wax ji waatul bu wéet meen ab waa kenn ku nekk dafa am ci bunt bu la wooye foofu rek nga mën a mën a jaar pour jot ci moo tax nag doo xasee fëgg ci bunt boobu ah nga la nag sax fa goppar fa goor fa dee dara bu la ci génne waaw waaw koo xamante ne xam nga yàlla ba pare xam nga yonente alayhi salaam xam nga Cheikhu Tidiane xam nga sa sëriñ xam nga sa bopp kan kan moo la mën a jëriñati ku la jéem a jël na da lay da lay jëriñoo waaye du la jëriñ kon yal nañu yàlla may euh, musal ci wan suñu sëriñ gannaaw képp ko mosaan a def rek ñàkk nga Baye Ousmane yàgg naa wax ne xale yi bëgg nañ la de xam nga ne xale yi bëgg nañ la waaye nag yaa def si ñun xam nga man lu bari mën naa ko seede ndax démb laa woon dëj xam nga nag ndeysaan ndaw boo xamante dañ na moo mag mag ñi xanaa loolu mooy njigiri <laughs> loolu moo ma dal moo tax nag ma fekke lu bari mun a seede lu bari Baye Ousmane jërëjëf Baye Dramé ñu ngi lay nuyu waaw Baye Dramé ñu ngi lay nuyu suñ maam ju baax ji kon gis nga kon ñu ne Baye Dramé li yëpp yaa ñu ko may suñ maam ju baax ji yàgg fi loolu ànd ak wër mag boo xamane ne day sawarloo ay ndaw li ma li li ma gën a neex nag jamono ji nga xam ne ñu ngi gën a féete ndaw nekk ci école bi di jàng ci lañu ñu moom di ñu jàngloo di ñu waxtoo ci rajo yi ak ci télévision yi di ñu waxloo ci ay détails ma ñëw ci moom ne ah, sang bi ah ay ndaw ngay koy waxtaan ngeen leen di waxtaanoo ci biir mag rawatina ci pays bi loolu wóorut mu ne maa leen garanti fi ma jaar ak mag ñi ba ñëpp dégg leen foofu laay jaar ak yéen ba ñëpp dégg leen kon sëriñ bi jërëf yaa baax. yow tiitaloo ndaw ñi waaye yaa ngi yëkkati ndaw ñi meññati ndaw ñi yal nga ci jëriñu lu bare bare bare ànd ak wër ak kattan waaye kontaan nañ ci ki ñu may de kontaan nañ ci moom lool ñu lay seedal na kontaan nañ ci Baye te walaay noonu la Thierno kontaanee ci yow ndax ay mag duma ci tuddee kenn rek doy na muy seex maanaam suñu Baye ba Dieng xam nga ko bu baax ma dëkkoon ak moom mu wax ma ci yow lu bari loo xamante ne yaa ngi àndoon ak Thierno ci ci ci xaal yooyu noonu kon yow itam Thierno da laa gërëm kon nag nuuru mi nuuru na ala nuur kon mbir mi noonu ko jokk ci ku jokk itam jokk nga rek kon nag jërëjëf dañoo kontaan dañoo lépp ci mbëggeelu Cheikh da ba dañ maa bett sax jomu kàddu waaye man bëggatuma sax di wax ci kanam xale yi ndax xale yi li ñu wax doy na man daal maa bëgg toog rek di leen déglu di bàndee xoog seen kàddu yi neex yooyu di xool seen taar yu rafet yooyu di xool mbëggeel bi nga xamante mi ngi jébbi te bañ koy saxal saxal démb ah métti woon de kenn ñu ne du fi dem du dem ah ñu bañoon yëpp nangu nañ tey ñi siisu nag yal na yàlla yërëm leen wa ma zakara bi salaamaaleykum wa rahmatullah macha allah mooy kur amul ay bëñ ñaareel bi boolewu ci wax ju bëri ab martoom la wut rek dugg ci biir néeg bi daaj ji bëñ ba affaire bi jeex takk mu ñëw jàkkaarloog nijaayam xamul nu muy def bàyyi xool xool xamul nu muy def mu siiñ nijaay yi gis affaire bi jeex tàkk mu ne ko ñibbil may naa sa baat waaye jubluwuma ci maye baat bi li ma ci jublu mooy mbëggeel gi xam nga li ko taxawut marto ak dajji ay bëñ ni méttee waaye dara mbëggeel rek moo ko waree mbëggeel rek moo ko wane Baye Rahman lépp lu mu xam ne Baye Ousmane bëgg na ko mu ngi moom dafa jël ay doomam taawam bu góor nga xam ne doomam ni mu neexee ñëw na ko Baye Ousmane jox naa la ko diye moo taxit taalibeem fayee na ko lool man jaa bilansana fa loo azru am zaliha wa man jaa bi sayya falaa yujza illa misla sëriñ bi bismillah xadru miqdaar azim jërëjëfe Baye Ousmane jërëjëfete Baye Ousmane alhamdulilah ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu di nuyu di ziyaara sama sëriñ sama wasila sama cheikh murabbi sama xarit sama yaakaar tey ak ëllëg muy Seydina wa Mawlana Baye Ousmane ñu ngi koy ñaanal yàlla yaan yàlla guddal ay fanam wural ay cëram ci barke Cerno Sandem radiyallahu mook njaboot gi yëpp nag itam ñu ngi kontaan bu baax ci teewaayu sëriñ bi Mawlana Baye Ousmane ak mboolem délégation bi mu àndal bàyyiwuma kenn min alif ila yaa su ma limee damay juum di ziyaar yi tamit Cheikh Mouhamed Dramé sama maam sama sëriñ sama xarit dëgg-dëgg sama xarit la eh, Baye Ousmane maa ngi lay seet loolu ndax yaa ma gën a xam sax nag ñu ngi koy ñaan yàlla Cheikh Mouhamed Dramé yaan yàlla guddalee fanam yaan yàlla waral ay cëram tam ci barake soppem bi ci ano seen yàlla maa ngi gërëm itam samay wajur yi teew ci bés bi nga xam ne sama bésu sëriñ la Mawlana Baye Ousmane di ci sama yaay Mariam Dieye ak mboolem njawar gi yëpp su ma limee damay juum mboolem ruus yi fi teew jiital di Baye Ali Ndiaye ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm itam seen teewaay ak mboolem mbokk taalibe yi jóge ko ci bari fasantikoo ak itam mboolem dëkkandoo yi maa ngi gërëm itam samay soxna di gërëm samay goro eh, Baye Ousmane maa ngi lay seddal ne ba ma yebalee ci dëkk bi ki ma njëkk a taaw téye ci sa kattan yow Baye Ousmane mooy maire Sëli Ndiaye mais seen njaay mooy yaay moom ñang di yaayu xaar ñang di yaayu faatu itam jamono yooy ñu ngi nekk taaxe kaw dip balaabe fa na ma doon fekk añ këram lay jóge ko reer këram lay jóge ko sama yére bu tiimee bu tilimee ñoo koy fóot ataaya ci posom lay jóge ko moom maire Sali Ndiaye ko ba léegi nag yàlla dimbale ko mu dem bitim réew waaye Baye Ousmane maa ngi lay seedeel ne ba léegi dooleem mu ngi ñëw ci xadara bi lépp luy xew fii ci xadara bi dana jël alal ju bari mu yónnee ko ngir dooleel ñu ba mu jàppee ba léegi wut ku saxala te ku bëgg Baye Ousmane la itam yaa yàlla guddal ay fanam waru ay cëram loolu moo waral ñu defal ko diplôme remerciement delloo ko njukkal ku ci topp itam di maire Maimouna Diallo di sama goro itam wax dëgg yàlla teraanga bu nekk defal ma ko ci dëkk bi këram laa doon lekk laa doon naan sama yaram ñoo ko sama yaram ñoo ko doon fóot teraanga bu nekk defal na ma ko kon kooku xeeloon na itamit jërëjëf moo waral diplôme bi ñu ko ñu ko jox baaba taawul kooku itam maa ngi sant samay dëkkandoo sonn ma fi ragal moo fi jaaxle moo fi lépp loo xam ne maa ngi koy bëgg ñoom ñu ngi ci nekk Baye Ousmane maa ngi lay seede loolu dafa fii daal laa dëkk wéetu mu fi benn yoon de waaye wéeti la kaay bu njëkk bi nag mooy Mawlana Baye Ousmane moom xam na ba may njëkk nekk fii ay guy rek moo ñu waroon àll bu ñuul kuk waaye wetu mu fi de ragalu mu fi benn yoon ndax Baye Ousmane mu fi nekk ak man Baye Ousmane yàlla nga fi yàgg te wër wax ji de gudd ziar bii du sama ziar ziar Mawlana Baye Ousmane la ñun ñëpp ñoo ci xemoo gan yëpp ay ganam basement lañ ku fi ñëw jeng nga ñëwal ñu ñëw ak ñu bëgg ñëw te ñëw ñëpp maa ngi leen sant di leen gërëm oma zalika lay ba Aziz jërëjëf Baye Ousmane alhamdulillahi alladi hadana li haza wa ma jërëjëfee Baye Niass. jërëjëfee Baye Niass. suma jërëjëfee Baye Ousmane Dieng. jërëjëfee Baye Ousmane Dieng. ngi sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi eh, bis bu nekk dañ koy tuddee na mu tudd samedi tey samedi lay tudd aljuma aljuma la tuddoon xafla bi xafla Cheikh Ousmane Dieng la alhamdulilah ci at yu yàgg nag. te ku ñëw ci tànt bi ren nga ñëw ci at yi woon ca gannaaw xam nga ni lépp yokk na loolu barke sëriñ bi la ñu ngi ñaan yàlla itam mu jëm kanam alhamdulilahi rabbil alamin bi nga xamee ni yar na xale yi ci soufisme ba ñu xam teggini sëriñ ki wax sànq dafa wax euh, Cheikh Abdourahman nit ki nga xam noonu lay def ci kër sëriñam loolu dañ ko yar rek ci ak ak sufiyanke ba mu xam teggini xadra yàlla loolu mooy tax mu jëriñu ki kay nettali it dafa wax ni daf ko wax ngir aj roy roy ci ndaw yi topp ci seen kaw xam ne nii lañuy ñuy àndee ak sëriñ kon yow tam baay Abdourahmane Diop alhamdulilah ñu ngi lay ndokkeel ñu ngi lay jaajëfal Abdourahmane Fall ñu ngi lay ndokkeel ñu ngi lay jaajëfal di la wax ni ilal amaam ci kanam ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi eh, suñu xaleel la suñ kóllëre la ko jàppante ak ñun la ngir yàlla ak ab yonentam ñu ñun itam fu ñu toll ñu ngi koy ñaax ci mu dolli mbëggeel ci sëriñam ndax loolu mooy buntab njëriñam alhamdulilah xam na ko loo ko ci dolli it dana jël dafa sàkk woon bis bi ñu ñëw daje ak Baye Ousmane comme at yi jàll alhamdulilah saafuwante ñu ngi fi fekk sang boo xam ne nag taxul ma miin ko eh, te mu feggoo ak Baye Ousmane Dieng Cheikh Baye Dramé loolu moo tax bi ma ñëwee eh, ma jubal ci Baye Ousmane nuyu ko doog ko ci teg ndax xam nañ ni bàyyi Ousmane jox na ko cër ci féetale bi mu ko féetale fi mu toog loolu cëral nit la ci sa bis kóllëre bi leen yàlla boole ba tax mu demee nii yàlla na jëm kanam ya allah ya rabbi Mawlana Cheikh Ibrahim nag mbiram amruhu waadix mbiru Baye luñ xam la mbiru Baye nekkul lu ñuy laajte te ñiy soit ci jamono bi gis nañ ni bàyyi ñu Niass xalifaam bu ñëw rek martaba Cheikh Ibrahim dafay gën a feddliko mm-hmm. ba ci suñu xalifa bi boo ko xoolee lim def ci Soudan am na jaamab yàlla bu xeebu bu mel ni man doon diingat wax bi waaye mujj na xam ni laal na borom martaba mooy xadra bépp maam bu jëm ci kawam mu xam ni lii kat bu ñëwee xay la woo xam ni du xaj ci moom du xaj ci ay bokkam mu nekkit ku xelu daw tuubi hmm. nit nag su tuubee te tuub ci ku mat ku mel ni alxalifa daf ko wax ni ko jéggal naa la te it na ngeen ko jéggal yéen mbooloo mi ndax xale la hmm. te xamut musumaay gis sax kon li mu wax ci man daf ko wax rek ci kaw réer alhamdulilah kalifa gu mat kalifa yi noonu lay mel su ko neexoon mu taal ci xarab bu mag duma leen ko dañ koy duma ñun su waxee wal leen ko dañ koy wal ba mu nooy kon su waxee jàmmal leen ko itam dañ koy jàmmal rek waaw loolu dafay wane ni Cheikh Ibrahim wax na maratan uxra fu nekk mën nañ ko fa fire waaye ba Cheikh Ibrahim moom xam ngeen ni mu ngi gën a jëm kanam man de ak Baye Ousmane Dieng mii nga xam ne ay murit lañu woon ci yoonu Cheikh Bamba ñun xam nañ lëf ki li muy saf dëgg dëgg dëgg tey kuy naan bière bis boo ko joxee liqueur xam na ni ñoom ñëpp bokk tudd sàngara waaye wuute nañ sax am xaañaan bon jërëjëfee Baye Niass jërëjëfee Baye Niass waaw jërëjëfee Baye lii ay kàddu yu tabaraku la rek ndax sangu yu tedd yu mel nii boo ñëwee seen jotaay alhamdulilah ñun la barkeelul mënuloo ñàkk a barkeelu mais ku xam mooy xam ni bàyyi moo raw bàyyi ndëmbawaan la. Cheikh Ibrahim Niass te teggin ji nekk ci moom ngay xam ni kii moo raw ndax su ko neexoon fay ñëw rek ñuri kaala yi kaalaam rek des. waaye daf ko faa bàyyi nag mu mel ni njeexaatam gerte yow yaay seet kan la ci loolu sa hittey bopp la. ku deful yitte rek doo xam kan mooy Mawlana Cheikh Ibrahim loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax eh, man gannaaw bu ma sooboo ci yoon wi tukki naa ci réew yu bari dem naa ci Mali Mali Cheikh Ousmane def naa fa lu mat juróom benn zaawiya yoo xam ne jàkka yu bokkul la yépp seen astafurullah azimalesi bi ñu ngi ko jokk ci bi isni Cheikh Ibrahim boo demee da ngay fekk nit ñi ñu ngi tarbiye ñu ngi àgg yàlla lu mat juróom benn fukki zaawiya yoo xam ni wër naa ko suñ xamee ni Sénégal nga jóge rek booy ñëwee yaay seen ilimaan ci julli yaay seen ilimaan ci wazifa yaay seen imaam ci waxtaan suñ paree ñu dajaleel la xadaaya loolu Maulana Cheikh Ibrahim rek la ko ay nitam am Burkina faço bi ma fa demee dañ ma hadiyaal ba hadiyaal ma soxna alhamdulilah mu ngi suma daara tey di jàngale alquran mu ngi ci ñeenti bant loolu faydu la Niger kadhalika bi ma demee shérif yi ñoo ma doon dajeel dal ku xam coota xam Cheikh Aboubacar coota xam ni kooku bu la xalifaam jëlee teg ci wetam mënatoo am teraanga ci Niger bu gën a kawe boobu. alhamdulilahi rabbil alamin Cheikh Moussa Coota toog naa ak moom jëflante naa ak moom loolu yëpp nag kàddu yi sant yàlla Nigeria diggante Lagos Kano ba Ibadan ba dëkk yooyu jeex amu ci dëkk boo xam ne daw ma ci moom ay zawiya ay zawiya te loolu yëpp yàlla wan na ma ci seen biir ajaahimu Cheikh Ibrahim ak mbëggeelu baay goo xam ne sénégalais yi waroon nañ ko xam ngir ñu roy ci gis nga li ñu waxal Baye Abdourahmane wallahi soo demee ci Nigéria Abdourahmane di nga takkaat sa ndig bu baax nga xam ni dafa ko Baye Ousmane dara aw sa duñu dem nuyu ci seen sëriñ même soo amul ndox sax di nga jënd benn piyawoota mooy sachet ndox nga ñëw teg ko ci wetam soog ko nuyu balaa weer dee boutique maanaam magasin bi ñuy def yi dañ koy wëqaat bu weer bi dee joxe ko addiye pour leneen lii ñëwaat kenn du nuy si sëriñ bi te yoroo dara kon mbëggeelu Cheikh Ibrahim mu ngi mu nga Nigeria na ko taalibe yi jéem a xool ñu xam ko xam nga ni mbooloo mu day noonu ni ñuy dajee ci mawludu juddu ci Ibrahim mbëggeel moo leen indi jógewu ci benn dëkk de te diggante Kano ak Lagos 1000 kilomètres la junni boo defee Lagos boo defee ci kënu gàmm gi waa Lagos daanaka ñëw fay ëpp ñëw fay jiitu loolu nag sant yàlla la bu ñu gisee xafla bu mel nii xam ni lii dajeb xaqiqa la nit yi maanaa ñoo fi nekk nit yu xam yàlla ñoo fi nekk te xam yàlla léegi nit ñi ñu ngi koy werante ndax dëgg la wala du dëgg loolu moom wees na yàlla moom léegi gars yi en direct lañu koy wane ba bëccëgu ndare kam nga seen koo gi noppam ak lu ne mu ni feng di la xool kenn nëbbatu ko waaw yàlla laa wax daañ fàng ñëpp di gis loolu bàyyi ñes dimbali nañ ba loolu wees na alhamdulilah waaw ku tollu ci dañ koy xam wala duñ ko xam dañ ciy xame ni xamoo ko ku toll ci dañ koy gis wala duñ ko gis dañ ciy xame ni gisoo ko waaye ñi Cheikh Ibrahima yar gis lu duut yàlla loolu mooy njombeef fi ñoom waaye gis yàlla moom gune yi fa suñ pays bi sax mën nañ ko mën nañ koo gis mën nañ koo wane kon Baye Ousmane jërëjëf bi nga xamee ni yaa ngi jóge fu sori tiiree fa sa ba mu daanu fii ci Thiès ñu ngi lay yaatal ñu ngi lay dalal ñu ngi lay wax bismillah bari na ku juddoo ci dëkk bi te li nga def wala li nga man su ko mënee it waneew ko ni ko wanee kon dañ lay jaajëfal te loolu yàlla ak ab yonentam moo tax xasuma waa Cees nag dama ndokkeel suñ gan gi rek ci sërica bi mu ñu indil Baay Rahmaan xale la te yaru na te wax dëgg yàlla ku xamal nit yàlla ba pare yar ko ba muy xolli soble waaye waaye yar nga ko nag waaw ndax yeneen giir yi soo ci demee ñi mos dara ci yàlla turbine bu mag lañ leen di tegal ñuy wax ñu dee bind waaye xolli soble moom bokk ca baleb ëtt moom bokk ca kon sëriñ bi jërëjëf gàcc ngaalama ci yar bi eh, ñu ngi yeew suñu laabi fas fii xëy na sax liñ ci wax ni yaakaaru woon nañ duñ ko ci wax waaye seen ree yu neex yi ñuy jàkkaar lool dafay tuuse nit ki xaal mm-hmm. loolu moo tax ñu guddal ba fii asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kaw laa wax jërëjëfe Baye Niass nee na ca kaw la bëgg a dégg jërëjëfe Baye Niass jërëjëfe Baye Niass jërëjëfe Cheikh Assane Deme jërëjëfe jërëjëfe Seydi wa Mawlaaya Cheikh Mohamed Dramé alhamdulilah alhamdulilah ngi sant yàlla bu baax a baax di julli ci yonent bi wa sallam ñu ngi sant Mawlana Cheikh Ibrahim di gërëm mbooloo mi yépp nag sang yu góor yi ak sang yu jigéen yi sang yu mag yi ak sang yu ndaw yi mu ne di jiital ci sant gi ak ngërëm bi Seydi Cheikh Mohamed Dramé mu ne moom mi nga xam ne moo ñu may leer ci leeri Cheikh Ibrahim yi moo ñu asal ci géej ak dem donte kaas la ñun moo ci ñu nàndal ki dëngit yàllaa ko xiir rek bu ko neexoon mu ko léegi ndax sa njub gi yow sa jóg góorgóorlu coobale yàlla la mu ne dëngateem gi tam bu jàggateem mu ne waaye seet la nag ñeel la yow njub mu ne ndax boo gisee ku dëng man na lay des bu ba nga tax nga mën a moytu ak dëng ndax bu dëng amutoon sa njub du am njëriñ mu ne kazaalika itam guddi ak bëccëg mu ne su lëndëm amutoon leer du am njëriñ mu ne kon kon nañ sant yàlla leer nga xam ne yonent yàlla Muhammad moom moo ñu ko xotti comme niñ ko xottilee moom yonent bi tur ci turul mag wi yàlla bëgguñu bëgguñoo jël jël bëgguñoo yërëm yërëm moo tax kenn sopp te bëgg ñu sopp ko mu xottil ko tur woo xam ne ku ko tudd texe mu tuddee ko ngir koy tudd donte la ñu xam ko mbaa ñu reeree ko ndax fa bii moo jiitu Muhammad te xam ne fa bii mooy Muhammad rek yàlla waxoon na ne kuntu kanzan lam uhraf fa ahbabtu an uhrafa fa xalaqtu xalqan fa bii ahrifuni mu ne fa bii

ndax martabaay yonent yi jiitu woon yëpp daraja yi ñu di leen ko toppee bagage yonent bi la sallallahu alayhi wa moom bi mu ñëwee dajale lépp moo tax sangam bindee feeñ ci moom mu ne waaye ni bindee ñëpp noonu lañ ko mooy bopp ak tànk la ak dënn ak loxo mu ne insaaniyat boobu nag ñun ñëpp ñoo ko bokk mu ne waaye risaalaam du fi jóg mukk ba abadan mu ne te risaala boobu moom la ñuy donnante muy doxoo ci barab di dem ci barab di xeeg ci jëmm di jóge ci jëmm dem ci jëmm baax Mawlana Cheikh Ibrahim mu ne xamaguma déggaguma déggaguma ku xam-xam mbaa ku gis mbaa ku dégg mbaa ku am daraja wala ku am martaba wala ku am wilaaya ba mel ni Cheikh Ibrahim ku ñuy ku mel ni mu ne loolu xaw ko. te gisuma ku ko xam te gisuma ku ko wax itam mu ne waxuma ko nag ndax dama nekk taalibe baay mu ne waaye nit ñi suñ ñite ñibbi ci baay mu ne yàlla nañ ñite mu ne ndax baay moom mooy sëriñ xam ne doo day fekk fo dara new mu def fa dara ba nit ñi fa wutee dara di fa dara mu ne duxoo benn taalibeem di ko jëriñoo mu ne taalibe yi kay ñoo dem ci baay jëriñu ba xam ne seen jëriñ lépp na leen ñu delloo ko baay ci màggal ko ci bëgg ko ci liggéeyal ko ci jéem koo jëriñ nga fekk ñoom seen bopp la ñuy jëriñoo ci jéem koo jëriñ te fekk ñoom seen bopp la ñuy mu ne mbooleem bi wax ne bàyyi la ñuy liggéeyal du dépense lañ ko jox du kër lañ ko tabaxal du oto lañ ko jëndal du ja du alxuraan lañ ko jàngal du hadis lañ ko yokkal du xam-xam itam dañ ko dolli li koy liggéeyal dañ tuddee leen lii liggéeyal faydu bi boo leen seetee. faydu bi moo leen defar mu ne kon jërëjëf Baye Niass mu ne man mi Dieng laa sant Kajoor laa dëkk Bawol laa dëkk Ngembe laa dëkk Kër Musa Buri Kër Musa Buri Degen laa dëkk Ngaañax laa dëkk xulle laa dëkk mu ne su fekkee ne maa toog fii ñu ne man maay sëriñ bi bu dul waaye loolu mu tane ñun garag lañ xam-xam mu ne waaye xamuñ hadiya mu ne sama rakk ngi nii sama ginnaaw di Ibrahima Dieng yaayam moo wàccee sama yaay muy sama rakk di sama jaam itam mu ne xam na li wax. mu ne moom Thiès gii la dëkk ñun moo mooy li waa ji doon wax léegi rek lenn ci ñun sëñ Touba moo leen defar lenn ci ñun Seex Alaaji Maalik radiyallaahu anhu moo leen defar kenn ci ñun bàyyi moo ko defar ñëpp mooy man mu ne loolu nag lu mat sama mu ne sama maam bu ñuy wax Mor Masamba Jéeri Jeng yore na daara ca Ndar borom xam-xam yu bëree bëree bëri ci moom lañ mu ne may la soxna la soxna itam Sëriñ Tuuba daf leen waxoon ne jël leen ci ngeen takk ci ceddo yi ndax buur yi may leen jàmm ndax ceddo dafa fonk deretam bu la mayee soxna doom jalay toppatoo du bëgg ku ko gën du bëgg itam ku ko xas du bëgg itam kenn takk xale wutali kër googu mu ne kon su ngeen bëggee fegu ci nit ñi ak pexe noonu defal leen ma lii ma leen wax mu ne lii mooy indi mu may leen ay soxna te ñoom itam gàntu gàntu woon loolu mu ne waaye man Faye ak Baye laa ci Thierno moom wax na ma ko te moom muy tam lañ ko ko te baati tam lañ ko ko waxee mu ne man itam yéen ñii fay ngeen ci man rek ndax man sant ma leen laaju ma leen alal te yéen a koy jox muy seen trait seen doole seen xam-xam seen alal seen temps seen xol ak seen ruu yéen a ko jébbal sa laaju ma leen ko. mu ne kenn ku nekk du ngeen ñëw ci man yàlla nga wut mu ne waaw ma leen di laaj am ngeen ko wala amu leen ko am nañ ko kay ndax am ngeen jegam déedéet mu ne yàlla kenn koo jënd mu ne yàlla nag moom aalimul xayb falaa yuzhiru alaa xaybihi ahadan mu ne loolu lu mat a xam la kii ubbi alquran bi daf ma jëm jëm. mu ne waaye danaa ko wax ne. aman yujibul mutara iza daa wa yaksifu suu'a wa yaj'alukum xulafa al ard a ilaahu ma Allah mu ne loolu lu mot a xam la. mu ne gis nga jaam buy dem ci boromam. day dem ci boromam. ba bu buggee ñaan yàlla bu yëkkatee loxoom yàlla defal ko la mu bëgg te wax nañu ne aman yuslu riyaha wa yajlu riyaha bayna yadayhi wa yursilu rahmata bayna yadayhi mu ne wax jooju boo yëkkatee sa ñaari bool bu ne jëy wala ngay ñaan ngelaw dalaw mu ne jaam yàlla ci baay bu tuddee yàlla dafa war a ngelaw mu ne bu fekkee na boo tuddee yàlla du yëpp du ngelaw du melax dara du dal dara du yëngatu mu ne seetalaat sa bopp mu ne ndax yàlla waxoon nañu ne fa aynama tuwalloo fa samma wajhullah gannaaw foo jubóo rek yàlla mu ngi fa. mu ne kon foo dóor sa loxo bi yàlla nga fa. mu ne yàlla waxoon nañu ne. Suleymaan dafa doon ci moom. wa warisa Suleymaan Daawuda وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم ينصرون حتى إذا أتى على وادي النمل خالت نملة من من نكبة إدرامه فوف دم في كك nam la ak nam la tudd dafa nekk ñaari baat bii dañ ko góoral bii itam dañ ko jigéenal te ci kenn lay wax mu ne loolu lu ma tax xam la mu ne yaa ayoon nam mu lu tax waxut yaa ayoon nam la tudd yaa ayoon nam la wax mu firi mbooloo mu wax kenn fekk mbooloo la nam daf ne yaa ayoon nam waxut ayoon nam. masakinakum. udxulu masakinakum. na diw. yow wa diw. dugg leen ci seen néeg. dugg leen ci mu ne xam nga loolu dafay wan Suleymaan wa junuuduhu mu ne loolu lu doy waar la baay. yéen ñi mën a topp. mu ne waa ah yéen ñi mën a topp. dem ngeen marché. dem ngeen marché. teg leen ci suuf. mu ne su dëppoo ak sariya jëlal. mu ne waaye su dëppoo ak sariya. mu ne tegal. mu ne waaye waxu sànni la. mu ne wax jooju nag. mooy yaa ayyuhan naas udxuluu masaakinakum. laa ya'rimannakum Sulaymaan wa junuuduhu wa hum laa yash'uruun ci Souleymane teg. mu ne xam na lu Souleymane teg teg. fa tabassama daahikan min qawlihaa wa qaala rabbi. ah ndax xel li waaw fa tabassama daahikan min qawlihaa wa qaala rabbi awzi'nii an ashkura ni'mataka allatii an'amta 'alayya 'alaa waalidayya wa an a'mala saalihan tardaah wa aslih lii bi rahmatika min ibadika saalihiin. mu ne xam nga wax jooju Baye Dramé moo leen may kooku daf leen waxoon ne su ngeen bëggee xam ci man tuuti ci li ma Baye may na ngeen jàng sooratu Naml te firee mu ne ñaata maqaama moo ci na mu ne yàlla yàlla na ci ifrit tudd na ci tamit Aazib ibnu Barqiya ndax bu Souleymane waxee ne. kan moo may indil sees bi ci yéen. kan moo may indil sees bi ci yéen. yaa yor maraw. yaa yor maraw. ayyukum yaatini bi asiya qabla an ya'tuni muslimin. qaala ifritun min al jinn أنا أتيت قبل أن تقوم من مقامك وإني علي لقول أمين من لو يفرد لك قال الذي عنده علم من الكتاب كوكو آسي ابن برقيالة أنا أتيك به قبل أن يصل إليك طرفك من موتى وقام له بايع موتى mu ne li nit ñi daan sonné ci tarbiya di ci def téeméeri at ak ñeent fukki at ak lu toog lu kenn xamul ñii dof ñii ñàkk seen kër kër bàyyi mooy def ak xibla la koy jox ci yàlla léegi jëriñu léegi balaa yàgg rek ngay jëriñe mu ne loolu dal na ci Baye Rahman mi dal na ci Baye Ndiaye dégg naa ko de mu ne waaye dama leen di ñaanal ngeen ñaanal ma gudd fan mu ne waxuma ko nag ngir dama ragal dee mu ne bu jëm jëm sama jaar bi sama gànnaaw. mu ne jaarul nii ci gànnaaw. sama jabar dama bëgg ma ne mu doon leen. dégg loolu xam naa loolu loolu boo ko waxee. loolu waxi kam la rek. mooy wax ne. mu ne dafa wax ne. ñaanu ma gudd fan ngir ngir war fee sax. ñaanu ma gudd fan ngir war fee sax. mu ne kullu nafsin zaa'iqatul mawt. mu ne yàlla yamalee ko foofu. wax na sax kullu man alayha fan li fi des mooy yàlla. wa yabqa wajhu rabbika zul jalaali wal ikraam mu a te loolu lu leer la mu a kon kenn fi sax mu a waaye damaa bëgg a fekkee lenn ci li ma leen di am na lu ma ci gis tuuti la mu ne waaye dama cee bëgg a fekkee lu bëree bëree bëree bëri mu ne te loolu itam itam damaa bëgg Baye Dramé nekk suñu seede bu boobaa mu màgget bañ koy weer di ko weer tam nga sax koy ñàkk mu ne su boobaa. li ko Thierno waxoon dana ko gis mu ne maa ngi sant yàlla ci loolu bu baax a baax nañ tus nga lu waat waat te sel mu raxas suñuy bët nañ sekkal ñu suñ nopp yi nañ ko bésuñ dënn yi te xam ne dënn yooyu leer ak yàlla dana ci wàcc rek nopp yooyu wax yu dana ci wàcc rek bët yooyu nuuraan yi dana ci rek. ji nañ ko ba noppi te sax na. ndax ji nañ ko ba noppi te sax na. wala togg nañ ko pare sax ñor na. lekk rek moo ci des. mu ne lekk rek nag ku tiim ndam ndam. ñam bu am vitamine lekk ci. mu ne waay waay mu waral sa loxo nga tukk te seex. mu ne Sénégal. yàlla daf leen toggal maarifatu rafet def ko ci aset yu rafet lalal leen tappe yu baax mu ne tappe yu baax yi mooy islam mu ne aset yu rafet yi mooy tariqat si jaar mu ne ñam boobu mooy maarifatu dënalekat bi mooy bàyyi. dënalekat bi mooy bàyyi. moom kat dafa niroog yàlla. ni mu waxee ne bal ya daaw mabsuutaani. moom dafa sëbëntal xam-xam bi rek. mu ànd ak teraanga ak baax. teg ko suñ na leen lekk leen. te yor leen dàqal di empêché. mu ne te ba pare ñam boobu tooke na wu te mooy leer yàlla. lu waral Sénégal jëli mu ne te boo ko lekkee da nga suur da nga wér wér da nga am kàttan da gudd fan yàlla dina bëgg nga bëgg ko ngir ngir daf ne bëgg leen yonente bi sallallahu alayhi wa daf lay bëggloo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te yonente yàlla moo ñu su ngeen ma bëggee rek topp leen yonent bi su ngeen ma bëggee topp leen yonent bi su ngeen toppee yonent bi rek ma bëgg leen mu ne kon kon li bàyyi li daf lay bëggloo yonent bi ma ndax ndax jombu jombu ci jamono bi jataay bu mel jeunes yoo xam ne ay 35 ans moo ci gën a bëri jëm suuf ay jigéen ñoo xam ne 45 ans 50 ans jëm suuf moo ci gën a bëri ñu toog ci jotaay mel ni cangoon ba léegi kenn jógul kenn tugul kenn amul fenn soxla koo ci teg ci boppam naaw lan leen soxla du alal mu ne alal dajale wuñu ñun lu ñu fi dajale xoolante kon kenn ku nekk ziyaara sa morom ci sa bopp wala nga ziyaara sa morom ci jëmmam mu ne bëggante googu moo tax yoon ci yoon na ko saaba yi nga am na ñuy ñëw ci ñu jamono duñu saaba duñu suhadaa itam duñ ay mursaliina tamit tamit mu ne ñooñu daal yowal xiyam ne da ngeen leen ne yéen ñii te da ngay seet seet sàppe si njëkk sama moo yonent si li ci topp mooy saaba yi may mu ne su fekkee ne sàppe si njëkk si moom moo yonent si saaba yi ñëw topp ci ñoom mu ne saaba yooyu. kuréel bu moom la yeneen si wax ne am na kuréel bu ñëw sama ginnaaw da ngeen leen ñee. mu ne kon ñun bu ñu ñëwee ban rang la ñu nekk. mu ne xam nga sax sëñ bi am ñun. yeneen si amul yow. mu ne parce que yeneen si dañ leen a tënk. lu lu leen neex def def. lu lu leen neex wax wax. du fu mu ne yeneen si yàlla bindee ko noonu. ñoom ay maasum lañ mu ne ñu nag ay simple nit lañ rek rek am sañ-sañu yonent yi amul mu ne te daan yeneen war a dal du dal suñ kaw ñun du may may dañ fee newul te nekk nekk wala dañ fee nekk newul newul di lekk kanaan di dikku coota yi di takki jabar mbaa ñu ami jëkkër di juri doom doom di ami kont di bay di lekk li melaw nelaw di feebar di wér di am soxla léeg-léeg nga faj ko léeg-léeg faju léeg-léeg nga wér léeg-léeg nga feebar léeg-léeg nga am léeg-léeg nga ñàkk léeg-léeg sax dina waaj a dee na mën naa tàng tàngal ba root nga for ñàkk mu ne ñun li ñu téye ci baay yàlla ngeen ko xam billaahi wallaahi watallaahi ku ci mos ni baay ba seen gàmmu gi dañ see ñëw léegi dafa am lu ñu jaaxal dañoo bind lettre jox ma ci kaw table bi ne ma da ngeen di fecc ak a tëgg tëgg góor ñi ak jigéen ñi tam nañu jaxasoo te lislaam nangu ko mu ne am na ñoo xam ne mbokk lañ ci Demba Njaay mi jugee ci gàmm mu ne waaye bi mu ñëwee gis situation dañoo gerte gàmm nga dem ñibbi te yéen da nga ni wax ne da nga nekk ci yàlla xam ko gis ko mu ne te loolu gisul diine ñetti question yooyu laa lay laaj. man alhamdulilah trottoir gën trottoir barab gën barab lu mooy ña ko teewe gis nga ña ne jëm ca Kaaba waxtu wa ñuy aswad nekk seen xel yi seen xalaat yi. lu mooy foon hajarul aswad ñëw ci seen xel yi ak seen xalaat yi. moo tax ñu gis jigéen ñi ak góor ñi. waxtu wi ñuy ne ci tànt ak seen xol bi yëpp ci ak seen xol bi yëpp ci yàlla dong la nekk. amul ci yow soxla fecc na fecc na fecc loon ay saxaabaam itam ci xaswatu badar dañoo ñëw yeefari di tëgg di fecc fecc di yuuxu naan uulu ubal uulu ubal uulu ubal liñ ci nam mooy ubal ku màgg la mooy seen yàlla yooyu seen maam yaa ne woon nañu koy sabbal ko màggal jullit ñi bëgg a tayal yonent bi ñëw ci ñoom na leen xanaa yéen mënu leen a fecc ñu ñu noppi mu wax leen ko ba ñetti yoon mu jël jaaseem moom yonent bi door ko ci bakkam mooy défense bi mu yore woon nii allahu ajal allahu allahu ajal allahu allahu ajal ñoo maaj foofu la ko tubaab bi royee mu ne Romain yi daawul maajee noonu te Rome bu ma ko waxee rek moom mooy tubaab bi mu ne waajtaayu maaj bu rafet woowu yonent si ma ko jàngale gàddaayee na Makka dem Medina ay jigéen ak i góor ay xale ak i ndaw ak i mag ñoo ko teel di ko tëggal wax ma wax koy jàppee ci yoonu yàlla ay at la ma ne ko Kaolack ak Ndar ak yàlla ak fu gën a sori mu ma yàlla moo gën a jege ma ne man ma xëyee ma xëyee Kaolack añee Ndar yéen ngeen am ci yoonu yàlla téeméeri at wala fanweeri at sa yegg leen tudd na bakkan du nooy du nooy sax su ma feebaree. dafa teggiral yàlla ba nangu doo wax na sax moom moo koy feebar loo. xam gi moo xam rek moom moo tax. mu ne tey Ibrahima fekk nañ ko ci biir safara. ne ko sa borom nee na. lan nga ñu teewoo. mu ne kon sama borom xam na ne maa ngi safara si. ñu ne ko ah waaw waaw. mu ne loolu doy na ma. am kersa yi seen loxo di ñaan yàlla. dañuy dem a dem a dem bala ñuy am kersa yëkkat seen loxo di ñaan yàlla. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañu ne. maalkum kullu shay'in wa ilayhi turja'un loo war a lu mooy alhamdulillahi ala kulli haal alhamdulillahi maa shaa Allah lii abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly kuñ fa nome war ngay sant yàlla ñun lay digil kese la doom si di baram